Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ci jiital seen Muntaxa mi nga xam ne mooy sëriñ Touba tey ci kaw suuf di ci teg njabootu sëriñ Touba gépp bu ñëwee fii tam dina rafet ñu jiitu ki nga ñu nuyu ki nga xam ne mooy kilifa fii bërëb bi ñu toog te ka jiitu mooy kilifa réew mi te mooy protecteur des arts et de lettres kon bu ñëwee ci kër gu mel nii nga xam ne ci ndigalam la amee war nañ koo nuyu moom itam. di nuyu bu baax tey gërëm euh, docteur Amady Bokoum mi nga xam ne mooy directeur général du musée bi ci yaatal gi te lu jiitu tey ñu xamal ñëpp ne ñoo bokkoon liggéey bi daana bàyyi sax liggéeyam ñëw Touba ñu dafa def ay réunion ci lu jagal liggéey bi ba commission scientifique bi nga xam ne ñoom sëñ sëñ euh, Maxtaar Ndiaye ñoo ko jiite euh, liggéey na ci liggéey boo am solo kon directeur général ñu ngi lay sant di la gërëm lii la wax ne gis nañ sa taxawaay bu baax rawatina tey jii li nga def ndax bi nga yëgee ne soxla nañ danga ñoo abal bari bi laajul ci dara yaatal ñu te tagal ñu taral ñu loolu xam ne niñ toll yàlla na jàll fayal di nuyu itam kilifa yi fi teew di ci jiital sëñ Hamza du sëñ Abdou Lahad ak moom ñëpp euh, Sidi moom sëñ Abdou Khadir it war naa ñëw xëy na dana egsi bala ñoo noppi di nuyu sëriñ maam Thierno bu sëñ Moustapha Bachir moom it agsi na léegi euh, di nuyu bokk yëpp sëriñ Jili Kebe bu soxna wàllu bu sëñ Saliou mi ngi ne toog Euh, di nuyu sëriñ Abdou Akim Guèye ak sëriñ Cheikhouna Guèye ñoom itam seen taxawaay rafet na lool ci liggéey bi. liggéey bi nag li ñu ci dugal euh, ci xalaat mooy jàpp ne sëriñ Tuubaa li ñu fi bàyyi jombante naag ñu bàyyi ko mu naax saay xam ngeen ne ñu ñu ko bàyyee ñëpp daanañ ko toppatoo muy njabootu boppam boo demee Daaru Xuddoos am na lu fa nekk nga dem Njaareem am na lu fa nekk kër goo ci dugg am na lu fa nekk ña ngi koy saytu waaye nag ñu gis ne saytu gi war naa mën a gën a yem war naa mën a gën a mel ni mu war a mel te loolu dañ koy tegtaloo ci ginnaaw sëñ bi liggéeykatu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam lu yonent bi am war naa am lu niroog loola moom laa wax léegi ci biir ne boo demee fu mel ni Turquie da nga fa fekk musée boo xam ne yonent bi rek la fa ay eh, bagage am nekk ak ay histoire am ñu di ko wax Topkapi kon loolu bokk na ci xalaat bu njëkk bi bu ci topp itam way juru sëñ bii toog muy sëñ Abdou Lahad daf ñoo dimbalee lenn mooy ginnaaw bu loolu lépp amee itam dafa defaat beneen taxawaay ci wàllu dajale bagage yi da ci dajale woon ba tey boo demee daaray kaamil da gis ne daanaka li ñuy wax nii ma nga fa mooy musée xëy naa kay dañ koy yokk loolu nag day mel ne joxañ ndax ñoom euh, luñ junj rek lu war a nekk la ci lañ tegtaloo nekkoon kat ndekete wet googu fu ñu war a mën a jëm la war cee xalaat war a seet ba xam ne mën a bañ ca dalee wax dox nag yàgg na man ëpp na fukki at ba sëñ mu euh, sëñ Muntaxa mi fi nekk tey dem naa fa ci 2015 waxtaan ceeg moom mu rafetlu ko lool wax ci xalaat yoo xam ne sax man xaw ma ko woon bi ñu fa jógee ñu dem ci sëñ Sidi Muxtaar fekk ko kër Ngana wax ko ko moom itam boobu moo fi nekkal moo fi sëñ Tuubaa mu rafetlu ko ñaan ci ginnaaw bi mu fi bàyyi ko nag ba ki démb lañ demaat ci sëñ Muntaxa nag doon yees lu ndigal li biñ demee wax ko ko bi ma ko jàngalee lii moo doon wax léegi ba nag mu ne ma rek euh, lii moom lu leer leer la loo xam ne ànd naa ci léegi jox naa leen ndigal nga jiituma ci dinaa la ci fekk kon am nga ndigalul tàmbali ci di ci dox ak wax looloo tax ñu sañ woote tey ne bu dul woon loolu duñ ko ñem duñ ko ñeme duñ ko sa duñ ko sañ mu mel ne euh, ñu di ko ndokkeel bu baax moom suñu Muntaxa ci taxawaayam ci wàllu xam-xam te loolu dafa bokkoon ci li nga xam ne sëñ Tuubaa da ko ñaanoon dénkaane ko batale fi bàyyi fi dañu wax ne ñetti mbir yi moo gënoon a feeñ ci li nga xam ne lu mu naaloon la mooy dem Makka jumaay Touba ji ak def ci Touba ab jàngukaay boo xam ne àdduna sépp dañuy ñëw dafa sakku ci xam-xam moo tax mu wax ne yaminu rabbi la mizaaral mujtaba aj ahabu li min mil al ardi dahaba siyaari yonent bi te mooy dem Makka moo ma gën ñu jox ma àdduna duy ko wurus ak bam ak ak xaalis bam bam fees waaye nag li tax demul ko ne xam na ko huwa alladi yaq jismi an ziyarati lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru digganteem ak tubaab yi xam ngeen ne bi mu duggee ci loxoy tubaab yi 1895 ba ni mu fi jógee tàgguwul ak ñoom 33 ans xam ne ci loxo la nekk ñoo koy wax fi muy fanaan ak fi muy yenn loolu moo tax demul màkk kon loolu mooy mébru mébru bu jëkk bi doon tey gannaawam yàlla def na ba fi mu ne murid yaa ngi àggali yenn joote bu dee ci wàllu xam-xam tam eh, lim ñaan ci tuubaa mooy wajaxal ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahum na nga ko def barab boo xam ne barabu sàkkaayu xam-xam la loolu mooy université bi ma jàpp ne chatre bu ñaareel bi ci way mooy musée bi te mooy mawdi al fikrati wa tafahum mooy barab boo xam ne dañ fay xalaatee di fa déggee déggin wu rafet musée bi loolu lay indi ni ko sëñ Maali Njaay leerale mooy buñ fa dajalee sëñ njàngaleem sëñ Tuubaa dajale fa liggéeyu doomu sëñ Tuubaa dana may jiil bi ñu toll muy génération bi ak ñi di ñëw ñoo xam fu ñu teg seen tànk ba ma seen adduna man a jag seen àllaaxira mën a jag loolu moo tax muy lu am solo bu ñu ko waxee sëñ bi nag euh, loolu la wax joxe ko comme digal loolu la ne woon tey ñu woo mbokki jullit yi mbokki taalib yi ak mbokki réew mi ak suñ mbokki journaliste yi xamal leen ne liggéey bi daal noonu la demee bu ko defee li ci sëñ Malick sëñ Maxtaar Ndiaye wax ñun ñëpp dégg nañ ko ak li ci docteur Boukoum wax ñu bàyyi kon léegi xëy na ak euh, njaay